Macky Sall dafa trahir le peuple sénégalais Macky Sall mooy le seul responsable de li xew ni ci réew mi te responsabilité boobu duñ ko bàyyi mu jaas Macky Sall amul légitimité amuko amuko won ko tay doga ñew ndax man bokk na ci candidat yi nga xam ne génné 2019 ma waxoon candidat ñenti candidat opposition yi ne position de principe du ne génn nañu génne xalé yi ñu xeex de position de principe moy duñ ko reconnaître amul légitimité il est le président légal waye du président légitime defe mennu man ci ñenti candidats yi ma yor position boobu ba légui mosoo ma dégg ma ko président Macky Sall Macky Sall laa koy wax parce que légitimul dafa mbuxum élection yi légitimité boobu nag li ci desoon lu tuuti su doon des na moo fi nekkatul kon suñu newoon ci yenn situation yi Macky Sall dañ ko war a wàcce tey jii suñu nekkoon ci yenn situation yi waaye foofu nag laa bëgg askan bi déglu ma nañu déglante bu baax a baax a baax parce que loo gis rek tey ak daal daf cee baax benn bu kenn dem pale génne Macky Sall day wàcc par force que loolu baaxul ci démocratie fi mu mën a jëme réew mi du baax moom bu xoolee boppam ba xam ni amatul légitimité pour jiite Sénégal mu ne jóg naa man démissionné na askan bi yëpp jóg tàccu ñu préparer suñu élection anticipée ñi war a dem dem jàmmarloo waaye bu ko deful nañu ko gunge ba ma mandaam jeex waaye bu kenn dem ne dañu koy wàcc ñaareel bi yenn borom xam-xam yaa ngi wax déjà gouvernement d'union nationale ñun de sama bopp laa mën a waxal ak ñi ma àndal bokkuñu jegewuñu benn xeetu gouvernement bu Macky Sall que dañ koo nawloo wut ba war a mën a ànd ak moom ci gouvernement parce que koo dem ba ni def na haute trahison mënatoo wëlbati biir ànd ak moom ci ay gouvernement léegi nag mu des ci ma bëgg a waxtaan ak Sénégalais yi révolution bi am na ba noppi kenn mënatu koo arrêté bu ñu ne woon compet Ousmane Sonko yóbbu wala ñu def ko Decroix ñu def ko Cheikh Tidiane Dièye wala Khalifa Sall wala ku munti doon du tee lii ma gis ñi ci ndaw ñi kenn mënatu koo arrêté la révolution est en te gën gën see gudd 2024 ñu mortali ko la ca des mooy nañu bañ def erreur yi nga xam ne réew Afrique yu bëri def nañ ko mooy dañuy conduire seen révolution ba jekk ci cappaandaw bi mu am ñu ñëw ne ko coppet rawatina nag armée parce que réew am na fu muy toll armée day jël mbir mi te ñaare armée day am ay puissance yu bokkul fii yoo xam ne dañuy jël seen nit préparé leen pour ñooñu jël réew mi bu ñu sàgganee ba armée jël réew mi lépp luñ doon yóotu ak di ko préparer dañ ko ñàkk moo tax ma ne nañu bu ñu syndrome malien baa ngi fii keroog bu ñu defee seen révolution bay waaj yegg ñu ne armée génn na ñun ñu topp ci char de combat yi di tàccu laa ne mbir mi jeex na ñàkk nañ ko noonu la amee feneen ak feneen ak feneen moo tax révolution bi am na ba noppi Macky Sall mënatu koo téye kenn mënu koo téye kon nañ ko encadrer parce que stratégie dafa baax ci lu ne lu lépp nag la ñuy wax ci tere waaye suñu responsabilité ñun ñëpp askan bi mooy nañ ko encadrer ba yegg fi ñu bëgg a yem waaye nag teewul loolu tekkiwul nag nii dañoo firi Macky Sall rek di ko seetaan nañ koy encadrer mooy. Nous exiger imposer un agenda à partir d'aujourd'hui parce que que le peuple bi bug le peuple bi mooy imposer le rapport de force est ci ñun imposé imposer rapport de force isolément ñun ñëpp suñu dajaloon suñu parti mënuñu ko peuple bi moo mën a exiger imposer rapport de force rapport de force boobu nag bokk na ci benn lu ñuy exiger lu ñu lu ñu lu ñu lu ñu lu ñu ñaan Macky Sall de amul layam layam yi lu ñu exiger Macky Sall bu ci njëkk mooy ñii nga xam ne seen bakkan rot na ci mbir mi te muy responsabilité moom Macky Sall nañu jox ndàmpaay seen waa famille mënul mënul tax ñu ñu ñu ñu rattraper li ñu ñàkk waaye loolu. le minimum la ñu baña a di ba melni ni ndax mom bi nit ñi 2011 ba ay bakkan rot ci bi mu avons ci nguur bi da leen ñenn ñi sax commencé ñaxtu ñu Nous ñi nga xamné sen bakkan rot na ci exigence Macky Sall ak état du Sénégal dañu wara jox ndampay seeni famille ñaarel bi que ñi ci gañu dañ leen war a jox indemnité civile et militaire nag laa wax dañ leen war a jox ay indemnité jàppale leen ñu mën a faju ci ni mu gën a ba rafete ñaareel bi du lu ñuy ñaan Macky Sall tamit mooy prisonnier politique yi mu jàpp na leen libérer immédiatement et sans condition immédiatement et sans condition te nag premier point bi ma njëkk a wax gannaaw bu ñu nee réparation ñu ngi exiger ñu ubbi une enquête indépendante parce qu'il faut ñu xam kan moo tiré ak kan moo rey ay affaire u Balla Gaye jaar na fi leneen ak leneen ba léegi kenn xamul lu xew ak kan la loolu tax nit ñi di am fit defaat enquête indépendante ñi wax nag ni dép ñi ngi déposer une plainte auprès de la cour pénale internationale parce que lii c'est des crimes contre l'humanité te ci nguuru Macky Sall a fait au Sénégal ñettel bi moy bis ni ki dotu ñu nangu Macky Sall di persécuter les opposants ak les honnêtes citoyens di les espionner di les mettre sur écoute la terreur va changer de camp ñu ko nangul Macky Sall yooyu il faut mu jeex tey démb dégg ngeen gendarme bu démissionné parce que def na liggéeyam ni mu ko war a defee ñu envoyé ko ay police ñu koy espionné suba ak ngoon Macky Sall moom lan la ñu teg wala moom mooy Sénégal loolu dina dakk bis ni ki tey ñaareel bi mooy ñii nga xam ne ay milices la yu mu jël moom ay sambabo yi ñu jël jox leen xaalis ñor ay jaasi ak ay fetal di di di fit nit ñi exigence nañ identifier jàpp livrer à la justice du àtte ñom ak ñi len yónni nak ñom ak sen commanditaire juróomeel bi moy Macky Sall bëgg na ko bañ na ko dina créer les conditions pour ñu mëna dem ci ay élections nu mu gëna a ay wuruj fichier électoral jeex na ci Sénégal yor say carte d'identité ne ko jox ndaw ñi parce que ànduñu ak man jeex na ci Sénégal Macky Sall dina créer les conditions yu ñu mëne demee ci élection xam ñepp lay tollolé ku peuple bi tan ñu né ki la juróom-benneel bi moy ci ni mu gën a il faut ñu organiser élection yi ci élection locale sénégalais yi tànn seeni maire parce que maire yo xam ne seen mandat léegi mu def 10 ans kenn mënatu ko nangu dina organisé élection législative en 2022 sénégalais est sen député jox sen bop assemblée biñu bëgg a dina 2024 élection présidentielle ci nous mu gën a fait exception. rek a exception moy mu dem ba xamni mom tout le Sénégal amatul légitime Sénégal mu démissionné dans élection anticipée Il duñ ko may benn report mu toog naan maay buum maay bumi maay seet kañ laa kañ laa koy def ak nu ma koy defee kooku moom jeex na senegal euh, juróom-ñaareel bi mooy na delloo ñi mu xañ seen droit civique benn ci Khalifa Ababacar Sall bii ñaar ci Karim Wade parce que loo xam ne yëkkati nga ko dem ba juridiction internationale ñu ne la jaarul yoon nga ne damay jaay doole kooku du nekk candidat ci réew mi lool suñ ko seetaanee ëllëg ci man la ñëw gannaaw suba ci en keneen lay dem dootuñ fi nangu élection lu dul ko ku fi waraat nekk candidat nga war a nekk candidat Sénégal yi seet ku leen doy ñu tànn ko waaye Macky mooy tànn kuy kandidaa ku dul candidat loolu jeex na Sénégal juróom-ñeenteel bi wala juróom-ñetteel bi mooy moom Macky na taxaw jàkkaarloog sénégalais yépp amul bon vouloir wala ni vouloir, ni non non rek fi am na Sénégal ne troisième sax dootuma ko tuddu wax mala mandat amu ci droit te peuple bi amu droit peuple deuxième mandat sax doyal nañu waaye nekk républicain moo tax dinañ ko bàyyi mu yeggali kon bu fi taxawati naan ay non 2024 Macky Sall n'est pas candidat au Sénégal Vous avez une république bu mu am dafa dem candidat lii lépp nag dafa am y dafa am le peuple particulièrement les jeunes bu mobilisation bi tey lañu wara gëna mobiliser wu chacun et chacune kenn ku ne ci ñun am na sañ-sañu jëfandikoo àqam bi nga xam ne constitution moo ko may ni man du ma nangu ku ma noot loolu ngeen def tey jii loolu ngeen def fan yi yëpp weesu nañu continuer mobilisation boobu waaye na doon mobilisation pacifique parce que dafa am lu Macky Sall foqati woon ci ñun mooy kenn amatul woon sañ-sañu def rassemblement wala nga def marche tey war nañ ko ni ci par force dinañ ko def parce que constitution moo ñu ko may te keroog bi mu ñu koy may dafa ne déclaration ngay def amul autorisation déclaration la balaa may dee ñu ne marche non autorisée France mun a bàyyi nit ñi ñu manifester Canada mun ko bàyyi keneen ak keneen Turquie yow fi nga dëkk Sénégal ñu ne la doo fi manifester parce que son excellence Macky deuxième nee na kenn du fi manifester loolu jeex na ci Sénégal may proposer ñu continuer manifestation yi jël benn fan wala ñaar semaine bi un million de sénégalais nañu génn yor seen drapeau national xool fu ñuy dem fu ñu koy defee dem taxaw fa exiger que lii ma wax neuf mesures yi ak yeneen yoo xam ne après concertation dina ci yokk Macky Sall da koy respecté wala dootul am jàmm ci réew su amee kuy tiit désormais Macky Sall lay doon waaye dootul dootul doon ñun loolu jeex na ci réew may wax nag gannaaw bi ma waxee ci Macky may lancer un appel ñun ñii ñëpp nag di acteur politique askan wi mérité na des acteurs politiques qui soient à leur hauteur ñun ñëpp amatuñu droit yenn yi nañu sargal askan wi nañu delloo politique sa noblesse citoyen politique servir ton peuple la yaa ciy sonn dépenser si ñàkk ci ba dee waaye warook ku foog ni ci milliard ci politique ngay amee milliard ndax nga sa bopp loolu dafa war a dakk senegal mën nañu am ay projets yu wuute mën nañu am gis-gis yu wuute